dama julli ñaari raq ñaan yàlla na ma jural ay cheikh. ko defee nag ma mën ci am turandoo. incha <laughs> waxoon naa la ni ca njëlbeen jigéen yombul. te ay xaritam yombul. waaye yow euh, Aïda lii fleur bi ci sa loxo bi loolu la. yow laa fi def. mën nga def fii. <laughs>